Euh, ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi utiliser leen pour ñu développer économie réew mi ndax dinañ développer ci benn côté ñooy jiite ci jàkka yi di jàngale nee nag bu ñu defaree ab machine ñoom war nañ koo mën a def bu ñu doon defar ab avion tey ñoom war nañ koo mën a def ci loolu waxtaan yooyu laa am ak sëñ Maam Moor benn bis dama yàgg ci almaa yi loolu gis seen système d'éducation boo xam ne ñu ngi koy tas ci àdduna si léegi I ak Suisse yi boo déggee système bi ñuy tuddee dual dual du lenn lu dul ñaar système boobu ñu ngi koy jaay ci àdduna si ba ñun ñii sax suñ gouvernement yi ñu ngi dem di ko jëggaani foofu te buñ xoolee yoon wi dëgg dëgg xam ne système dual boobu Cheikh Amadou Bamba moo ko fondé moo boole xam-xam boo xam ne da nga ciy xam sa diine ba mu ne mën a sos ay dëkk mën a liggéeyloo nit ñi mën a gor ay àll foofu la sëñ am moor waxtaane ak man di ma expliquer aussi vision boobu ci vision boobu laa ko ne bés ñuy defar aéroport euh, aéroport AIBD bi di aéroport Blaise Diagne mm-hmm. ma ne ko mais sëñ Mame mm-hmm. yaa ngi ma doon wax ci système éducation bi ngeen dugal foofu mm-hmm. man jàpp naa ne gone yooyu buñ leen jëlee li ñuy jëggaani ay tubaab ñu di ko def université bii di Blaise gone yooyu nañ koo mën a parce que loolu ci laa yëngu def nañ ko ci trois cent aéroport ci àdduna si bi biñ koy wax ñi nga xam ne ñoom lañ jox liggéeyu aéroport Blaise bi dañ ñu doon ree naan ñu ñii fu ñu war a jële xam-xam boobu fu ñu ko war a jële expérience boobu ma ne leen li am solo mooy li sëñ Badiane doon wax léegi mooy racine yi mooy reen yi bu reen yi dëgëree fit wi rëy mm-hmm. da jàpp ci fi ki nga war a jàpp mm-hmm. xool fi nga war a xool muy sëñ Touba nekk sa point de mire mm-hmm. ne fi mën o muy yéene ju sell rek muy yéene ju sell mm-hmm. ñu waxtaan mm-hmm. ok jéem leen ko mm-hmm. mais bi ñu koy jox gëmuñu ko woon ma waxtaan ak sëriñ ndigal mii toog waxtaan ci ak sëriñ maam moom mu envoyé ma ab liste étudiant ma choisir ci étudiant yooyu ay gone que leen ci université yóbbu leen ci aéroport ci aéroport Sénégal tey ku teg sa wala ku fa jëlee sa bagage war ngaa xam ni ay gone yuñ jàngalee fii ci université Amadou Bamba wala ci centre technique yi fii ci Sénégal ñu jàng arabe mhm. wolof mhm. ak kii euh, parce que xam-xam du ci làkk maa ngi ni ingénieur laa te ci allemand laa ko jàng donc man nga ko jàng ci arabe wolof sax man nga ko cee jàng mhm. kon ma leen une aéroport AIBD bii ci Sénégal boo xam ne ñëpp ngi koy yéen aéroport Blaise Diagne ku fa teg sa bagage wala nga jël sa sa bagage war xam ñi ko monté foofu ci école yi lañ leen muy lu am solo voilà muy am solo muy lu am solo foofu de mhm. def nañ ko ci aéroport Nouakchott jóge foofu dem aéroport MTB mhm. def ko fa mhm. dem Côte d'Ivoire def ko fa dem Dar es Salaam def ko fa fépp fuñ dem dañ yéen donc am solo vision bi la daa amoon sëñ Maamoor ñëw moderniser ko mm. di ko yokk yàqu ci dara nag parce que mm. lépp yoon wi la mais il faut nga